tàmbali nañ benn grève boo xam ne tey la ñaari weer ñoo xam ne ñoo ngi ñoo ngi si grève boobu léegi si diggante ñaari weer yooyu nag ay jéego yu bëri jot na si am ay waxtaan yu bëri jot na si am itam c'est l'occasion ñu wa ñu jaajëfal suñu président conseil d'administration ak euh, monsieur le directeur de la régional de la santé ñoo xam ni ak itam suñu kilifa le ministre de la santé bu ñu bu ñu bu ñu woo recevoir ñu au niveau du ministère ajuma bi ñu génn waxtaan yi nag waxtaan bi nekkoon na si problème yu yu jànkoon yu hôpital de la paix di jànkoonteel donc waxtaan nañ si en fond et en comble si waxtaan boobu nag am na ay digg dig nañu saafara am na saafara yoo xam ne ministre bi jël na engagement taxaw si ndax mu saafara na hôpital La Paix delluwaat si lu mu nekkoon si kaw daje yooyu nag tey ak euh, suñu base bi la ñu décrété euh, wàññi wàññi grève bu ñu am entamé woon bi intensification maanaam dooleel grève bi léegi dañuy décrété wàññi dellu tuuti gannaaw wàcce ko si ñaari fan à partir de mercredi ak jeudi su loolu nag su loolu weesoo nag ñoo ngi euh, réitéré suñu kilifa yi ak bépp ñoo xam ni ñoo ñu yilif pour hôpital La Paix dellusiwaat si lu mu nekkoon maanaam ñu am ay jumtukaay yu am maana lu ñuy may ñu mën a liggéey ak liggéeyal ñan pour saafara jàngoro population bu Ziguinchor boo xam ne moo ñu tax a jóg jërë jëf.